donc euh, lu ñu wax ci atelier bi mooy atelier boo xam ne dañu ñëw pour xool projet de loi ba nga xam ne gouvernement moo ko indi assemblée nationale mu ñu naan projet de loi portant code de l'environnement donc code de l'environnement am na Sénégal depuis 1983 mais am na dañ ko révisé en 2001 donc actuellement bu 2001 bi moom la ñuy mais gouvernement bi bu mu xoolee dafa gis ni am na ay aspects yu bëri yoo xam ne maanaam xaw naa des donc ci projet boobu loi boobu donc il faut ñu yeesalaat ko indi projet bu bees moom mooy projet boobu moo ñu fi indi tey dajale député yëpp dajale ay conseil économique sociaux et environnemental dajale waa université dajale également ay experts ñoo xam ne ñëpp pour ñëw waxtaan ci wàllum projet de loi portant code de l'environnement te loolu Euh, vraiment ñu ngi siy gërëm également le ministère de l' environnement et du développement durable et de la transition écologique nga xam ne monsieur Baba Dramé directeur de l' environnement moo ko fi teewal ñuy gërëm également et di sant waa ONG Natural Justice nga xam ne ñoo ñu jàppale ñun assemblée nationale ak euh, le laboratoire d' études et de recherche en politique droit de l' de la santé nga xam ne moo ngi université Cheikh Anta Diop pour ñu mën a organiser atelier bi tey. ñu xam ne vraiment atelier bu am solo la parce que projet de loi portant code de l'environnement lépp loo xam ne moo jëm ci problème environnementaux yi nga xam ne sénégalais yi jànkonte nañoo ñoom muy jëm ci mbënn bi muy jëm ci érosion côtière maanaam nga xam ne géej baa ngi avancé muy jëm ci désertification changement climatique yi ñuy dégg di ko wax régulièrement jëm ci pollution yi yooyu yëpp projet bi mu ngi ko jël en charge ñun nag dañu bëgg a xam projet bi naka la tëddee xam lan moo nekk ci biir projet bi nga xam ne bés bu ñu ko présenté assemblée nationale en commission ak présenté ñu ko en séance plénière nañu xam nu ñu koy waxtaanee pour que ñu mun ko adopté donc loolu mooy euh, mbëbatu waxtaanu tey bi ak atelier tey bi donc vraiment di gërëm député yëpp yu fi teew nga xam ne dañu bàyyi seen yitte yëpp di gërëm experts yeeg partenaires yëpp muy ministère bi ak ONG Natural Justice pour accompagnement bi ak appui bi nga xam ne vraiment ñoo ngi fexe ba député yi xam comprendre enjeux yi député yi comprendre problème yi pour mën a jouer pleinement seen rôle muy voter loi bi jéem a saytu tamit lu gouvernement bi di daf ak évaluer politique publique yi